xam nañ ne wali mooy musique bu Sénégal les contrats pap Diouf bi ak quoi baana bu xawma dañu amul contrat xawma loolu lijeenti wu ko ñoom seen biir la li wër ba wër mooy sama artiste mooy tëgg samedi ñun faramaare ñu ñooy baale si kàttanu yàlla bi coow li amee it ñoo tëgg samedi faramaare na baale loolu rek li lay li yàlla defal doomu aadama bi nangu ko te xam ne lii la ko yàlla defal musique duy pexe de te du wax ju bëri

non ah, Sénégal dafa neex quoi ki naan ki naan kii jinne <laughs> ndeysaan xam naa ne xam nga xam nga <laughs> xam nga sëñ daam man wax dëgg yàlla moom moom moom day comédie comédien la waaw mais waaw waaw man maa wax day comédie moom day comédie sëriñ daam ñu ne day day day wax jinne di door jinne yow doo ma doo ma dimbali man maa wax day comédie xam yoo xam ne moo mën a ñàkk gis nga jinne yi toog naan damay saaga jinne yi loolu amul benn njariñ ban facette nga ci am dafa gisul jinne yi rek. li seen loxo sëriñ daam nekk sëriñ. waaye yow doo mat waaye xo di je xasida taxaw ne day tal nga tax ne jàng alxuraan déglu ma déglu ma bi xam nga fam lo xamne du du du taxul kenn jog ndax wax de yalla man suma ma duma nek fi ndax andiwuma fi nak tok di tok hmm. tok tuddu ay serigne dam ay di ay la nang nang est-ce nekul aussi donc dafa am lo xamne mo am ba des mooy. est-ce que tamit du yak sen profil c'est normal nga wax ci. manan tay waaye ñu ñu bari bari jammi jàmmi jàppuñ ko serigne comme comédien lañ ko jappé ñu bari man parfois dañ may envoyé ay ay ay ay ay vidéo naan ma xoolal kii dañ ba dañ may envoyé ay ay ay vidéo bu fekkee sëñ sëñ sëñ daam bi naan xaw ma day saaga jinne yi xaw ma parfois ñu génnee ko man <laughs> yor téere na day jàng noonu la ñuy jàng moom Zéga théâtre la woon daa yoon de ah yooyu <laughs> <laughs> euh, a nekk vraiment yooyu rafetul daal Serigne Sow yow moom da taal amoo xam-xam dara noonu damay waxee Ah. gis nga kooku li ma jàng ci xam-xam nax ju te si sihaar ba toog ci ay téere xam-xam xam naa ne yeggagul ci niveau boobu sëriñ tam waaw jàng naa kaamil wàcc naa kaamil jàng naa alxuraan ba wàcc bindu jox sama sëriñ ku tedd gi comprendre nga mhm. li ma jàng ci téere xam-xam xam naa ne yeggagu fa mhm. waaye li mu lay wax mooy sëriñ si nga xam ne dañoo nekk ci internet bi xaaj bi am na ci ñoo xam ne cité mixa la ñuy nekk suñ jugee bii sëñ boobu am na vidéo yu bëri yu muy tourné <laughs> naan maa ngi nii ndindi xawma fan cité Mixta la nekk appartement bi mu nekk foofu xam naa ko bu baax baax nañ bàyyi yooyu di dox ci xelu sénégalais <laughs> waaw luñ ma tax a wax li ma xam sëriñ si bëri na de Mara moom ku baax la sëriñ la moom Mara moom jàmbaar la ma ngi ñaan ñaanu kii. <laughs> délégué nga ne nga ne nga ne nga eh, yi muy tourné noonu ngay seen yëpp cité Mixta la te boo boo waxee mun la maa ngi Aliya. mais est du ay révélation yu yoo xamante ne nii tegoo ko. non non wax loo xamante ne tegoo amul amul. boo ñëwee ma yóbbu la ba fi nga xool soo ko gisee boo xalaatee vidéo seetaan ci ginnaaw fi muy toog ma yóbbu ba ci appartement boobu <laughs> sama xarit moo ko moom da Babacar. dañ <laughs> bàyyi xelu Sénégalais yi ñu fooyee sëriñ du caaxaan de. mais sëñ daam nekk sëriñ jàng alxuraan. Euh, nga jàng alxuraan taxut a nekk sëriñ. ñoom yi bind gis nga asraar dafa dafa ñoom dañuy ñëw naan dañoo jàng asraar wala dañoo gëstu asraar asraar du da nga koy gëstu at wala gëstu ko benn fan wala ñetti fan loolu du du caaxaan si lan mooy asraar sax laaj ko hmm. sunu kilifa gi waaw xam nga dafa am lu am solo loo xam ne man moom képp kuy dal ci kaw sëriñ si donte man sëriñ laa damay ñaan damay dama lay fekk si ndax fi mu ne da gis xale yu ndaw yoo xam ne hmm. tey jii ñi ngi waroon a toll ci tari juróomi isib tari sumun tali robon ñu dem toog yor seen kaala toog ne dañuy ñaan mhm. boo dee duggal ci internet bi boo bu bu fekkee da nga gis junniy sëriñ juróom-ñeenti téeméer yëpp kenn yoru ci soxna ay célibataire lañ mhm. waaye léegi xale na loo xam ne tey jii dañu wax ne bala nga koo mën a doon war nga am quarante ans mhm. jëm kaw yow nga am fanweeri at amago ñaari ñaari fi at ak juróom vingt ans rek toog toog ne damay ñaan loolu na loolu mën na nekk dafa am loo xam ne moo war a am njëkk mm-hmm. nit ki bala nga doon sëriñ dangay war a doon taalibe njëkk tërbiyewu ba pare xam-xam itam ma waxaat la ko képp ku ko donnul jàng ko rek doyut mm-hmm. xam-xam ci deret lay ne dangay dangay da donn ba pare jàng dolli ca waaye fi mu ne xale yi léegi li ñuy def mooy këla këla gën a rafet lu muy sol mu jaral leen ñu dajalaatu ba am ba amum oto jënd ko sinap ci oto ba wax ne damay nangam damay nangam te dara amu ci. Mhm. fi ne koo ci bettoon dem dem yow nan ngay demee ci kër sëriñ boo xam ne doo fa fekk dara dara dara dara luy nuru nangam. te koo ci waxal ba jël xaalis ba ba mu jël sa xaalis noppi na dootoo dootoo ko déggati. day lànk ko de téléphone am wala mu wala mu dugal la liste liste noire ñi ma koy jàmbat kenn xamu nu mu toll. Mhm. te ñoo xam ne nag di ma ci gën a yëm mooy ñoo ñu ñu xam. ñoo xam ne seen ni fi ne ni mu séewee kenn dàqu leen wax ci internet bi fexe nañ ba seen làmmiñ moom jàll na hmm. fu ñu waxee ci ñaan tudd leen te yàlla seede na ko billaahi ci tele laa ne billaahi amuñu dara ci baatin hmm. amuñu baatin amuñu xam-xam xel lañu am xel nit ñi nag léegi li ma la waxoon léegi ma waxaat la ko nit ñi ñoo bëggul dëgg nit ñi ay fen lañ bëgg ku la dàq fen kooku lañ jëgën a àndal hmm. dañoo jàpp naa nit ku bu osé wax dara rek ñu ne ki osé wax d' accord kii kii nangam dañ naan nangam kenn ñi mu ko wax te adduna moom fi ne kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko bàyyi yaay kenn moomu ko mhm. waaye del wax dëgg mhm. asraar nag xam-xam la boo xam ne xam-xam bu yaatu la géej la mhm. kenn ku nekk nanga ciy dugge am na ci ñoo xam ne fii mu ne lii seen mbir mooy tey jii boo leen woowoon tey jii di leen seetloo dañuy jël benn waay rek ne ko xoolal ma kii nangam wala nga woote jot ñu la nga defe ne moom nga jotoon fekk jokkoo ak moom keneen la wone ko di ma seetal hmm. xam naa ci koo xam ne fi mu ne daa wu daa jël nit teg ko ci wetam kookaay seet ne la nangam mu mu jël daal di teg hmm. waaye loolu amut njariñ nit lépp loo xamul ne xaw ko lépp loo mënul nga ne mënuma ko àdduna nag dafa yàggul adduna daa nekk adduna daa ma naan adduna nekk tukki na maanaam lu bëgg wax courtier fi bëri oh, hmm. adduna daa nekk tukki na adduna tukki na li ci des bareetul kon nit ñi nañu fexe far lu baax baax lépp lu waay xamul nga ne xawma ko lépp lu waay man na nga ca ne te def ci sa kémtalaal kattan ndax xam-xam kat fii ñuy may waxee ak yow nii képp ku am xam-xam xam-xam bi di dëgg amul loo mënta am ci àdduna mm-hmm. ndax problème yaa ngi ne xas nit ñi boo waxee dañ naan la man damaa sangu bay bëgg a dee lañ lay jox nga di ko sangoo ndax na sa aajo mm-hmm. damaa diw bay bëgg dee fi ne nag gëmatuñ sax ñaan li ko def mooy dañuy daj ñuy fen mm-hmm. fen nag bu bëggee wër réew mi euh, kapp sëñ bi kon fan la dëgg di fan fan nga gisee ci dëgg ah waaye nañu nañu góorgóorlu te def attention baax a baax xool fi ñu teg suñu tànk mhm. waaye nekk sa biir ruq taxaw wax loo xam ne yow yow mi ko wax sax yow gëmoo ko nit nag li muy wax su ko gëmul nit ñi muy waxal duñ ko gëm mhm. dafa bari ñoo xam ne dañuy oser wax la loo xam ne teguñu ko fenn ngir renk yow bëgg a jaar ci sa maayin nit ñi moom fexeel ba jaar ci seen maayin wax leen loo xam ne seen bopp attanu ko rek ñu ne waaw noonu la mhm. waaw fexe jaaral ci seen maayin rek sooy jaar ci seen moyen wax leen loo xam ne seen bopp attanu ko rek ñu ne d'accord loolu sax dëgg la ndax nangam ndax nangam te dekk demul noonu ah acca am ah. solo acca mu nekk loo xamante ne vraiment tamit nit ñi mën na see war nañ cee mën a xel bu bu bu baax a baax ndax wax naa ko l' expérience des choses vécues te nit ki moom ba amul expérience ci benn mbir euh, war ci waroo ci sax di ci àddu ngir mën aussi parce ñoo xamante ni ay influenceurs lañ mhm. euh, lépp lu ñu wax rek dafay impacter ñi nga xamante ne aussi mooy la mooy la jeunesse mhm. alors sans que il faut que ñu ñu dabee foofu ndax moom timi dafa nekk koo xamante ne ci ci ci këru diine la yaro ba pare mhm. nekk koo xamante ne taalibe Sëriñ Saliou la waaye itam dëkk Touba alors délégué euh, sa gis-gis ci événement bi nga xamante ne il faut ñu waxtaan si ndax gisuguma si aussi nga wax si euh, loolu mooy la fa passé euh, jàpp nañ ko Touba dóor ko sa gis-gis ci événement boobu noble kenn rek laa ca xam Sëñ Muntaxa man moom laa jàpp mooy noble bi Sëñ Muntaxa waaw mais xale boobu noble noble la dakkantalee boppam ah d'accord ok mm-hmm. euh, déglu naa kàddoom yi mu wax mm-hmm. waaye bu ndigal xasee jëb ci sëriñ bi looloo lool loolu la nekk nekk nekk murit rawatina nga gën a tuuti ci yoonu murit waroo cee sax wax lu ci jëm ndax ñun suñu bàyyee am nañ kër Touba sëñ Saliou Mbacke douze terrain la mayoon sama baay jëndatu hmm. sama baay séddale ko ay doomu baayam sunu kër gi xam ne sëñ Saliou